li ko Sonko doon tëddee tëddeem yu métti yi. ah non ah, Sénégal xam nañ loolu. ndaw si di Coura kàddu yu ñaaw yi muy yëkkati di ko teg ci deru Seydina Ousmane Sonko ngeen baal ma tuuti rek may ma te jéggal ma ma tontu ko. Coura Macky bi la Petit Mbay daan jàpp di la juutal fële ca New York Coura ñun yëg nañu ko benn. ñaareel bi topp mooy Coura Macky tuddoo sa baay bi muy juutal sa yaay nga bëgg a ñëw jël bàyyi jàmbur di ko tudd ci wax ju ñàkk teggin gi Coura Macky kenn tooñuñu Macky moo ñu tooñ moom mu fekk maire bu càggatu ba perte rungaas bu lokk ay piyon bu muuti mu jël ko yóbbu ko ci suñu assemblée nationale jox ko suñu 4-4 buy jar 44 millions ba pare wëlbati ko du ko fay suñu salaire u 2 millions par mois reewu leen nag da ngeen ni reewoon talu naa leen ne Sonko bàyyi jàmbur la Sonko doomu jàmbur la Sonko jëkkëru jàmbur la reewande gi ngeen yor nag reewandee koy faj ndax nag da ngeen a yaakaar ne réew mi seen baay moo ko moom ba ku leen neex ngeen saaga ko parfois nit ñu ñu ne jaruleen a tontu parce que temps amul waaye mag ñu mel na yow faaw ñu leen di tontu ndax ay doomeraam ngeen Sénégal nag li ma leen waxoon rek gat sa gat sa da ngeen koo bëgg te ñeme ko nay metti réew mi seen ndey moomu ko seen baay moomu ko donnuwu leen ko te judduwaalewu leen ko fépp fu ngeen mën a taxaw di fa saaga président Ousmane Sonko fépp fu ngeen mën a taxaw di fa ñàkk war ma président Ousmane Sonko danañ ko jël delloowaat ko ci seeni ndey delloowaat ko ci seeni baay saagaw ma nag damay wax rek pour mu leer bu loolu weesoo nag Sénégal du réew ndax Sénégal bu doon réew duñu fekk ay nit ñu am ay valeur ñu fekk ay nit ñu amal njariñ askan bi ñu leen leen fi ñukk di jël ay caga ak ay màggatu kooba di leen yóbbu suñu assemblée nationale ñu yendoog jàmm